Fatou Fall moo nara wutu Mame Thierno Dieng ci bopp direction hôpital principal bu Dakar directeur sortant bi nag gannaaw ba mu dalalee ki nga xam ne moo ko war a wutu mu ngi rafetlu bu baax liggéey bi nga xam ne jot na ko def ci bile structure. Je demande aux institutions, à moi-même. tout le personnel. maa ngi ñaan institution yi. de faire plus personnel de mieux man sama bopp. que ñu defal Fatou Fall. lu ëpp la nga xam ne moom lañ daan def. après trois ans et demi wala yaakaar naa ni war naa mën def bilan pour pouvoir faire un bilan synthétique nañ ci lim hôpitaux néew yu nga xam ne nous sommes l'un des rares hôpitaux au monde je dis au monde même temps ci wàllam nag directrice bu bees bi Fatou Fall mu ngi wax dina def kéem kàttalam ba jëmmal mission bi nga xam ne moom la ñu ko dénk samay priorité mooy gën a jëmale kanam faj bi faj bi nag bu ñu waxee faj bi di ngeen li ci gën a euh, bëri problème fii ci suñu hôpitaux yi mooy urgence yi donc fas yaa fas naa yéene liggéey boo xam ni dina tax euh, faj bi ci urgence yi gën a jëm kanam. cérémonie de passation de service bi amal nañ ko ci teewaayu jëriñ bi ñu dénk forces armées maître Sidiki Kaba. liggéey bu ñëpp ndax wax naa ko lu rëy la mais mën nañu wax ne tamit du chance mérite la liggéey bi nga xam ne général le médecin général Fatou Fall def ko liggéey. Fatou Fall la yëkkati nañ ko ci grade général des forces armées mu doon jigéen bu njëkk bu ñu tabb ci bile poste. moom nag fas yéene na indi ay coppite ci service yi nga xam ne joo nekk ci hôpital principal bu Dakar.